ألا إنني أثني على خير منمي ولا شكي للقلب kii kon ñoo ngi teew fii ci kër borom Daarul Mouti di résidence borom Daarul Mouti ni ñu ko baaxoo at mu jot suñu màggalee màggaluk Daarul Mouti ba ci suba sa Serigne Bachirou moom Cheikh Abdoul Khoudous mi nga xamante ni moo yore kàddug njabootuk borom daarul Muxti ak ñi mu àndaloon ci comité d'organisation màggal gi danañu teew fii def conclusion wu màggal gi kon kàddu gi genn lay doon sëriñ Bachir moom Cheikh Abdoul Khoudous moo ko yëkkati jëmale ko ci juróom-ñaar fukkeelu màggal ak benn gii nu génn démb di ñaan sunu borom fekke leenu màggal yi nekk ci sunu kanam sëriñ bi euh, mel na ni couverture médiatique bi am na ak yokku ndax daaw téeméeri journaliste ak juróom-benn fukk ak ñeent 164 la ñu woon daaw ren ñu ngi ci 182 kon mu mel ni ak yokkute am na ci euh, kon man fi ma ci yëngu ci comité bi maa ngi yëkkati ay cant ak ay ñaan jëmale ko ci Serigne Cheikh Khady Mbacké ak yow mi nga xamante ni bii itam li may wax rek ndax bu la nekkoon nga seet ñeneen. ñoo xamante ni woote wuñu mbootu daarul muuti ngeen dugal leen ci waaye danga fekk ñi nga xamante ni bii ci dëkk bi lañu dëkk nga jël leen euh, dugal leen ci organisation bi kon daal lii moom mooy euh, kàddu yi sëñ bi euh, ñu ngi lay sant di ñaanal Baye Cheikh mu yàgg fi loolu te wér ak njabootu borom daaru mooti gi di ñaan itam nga yàgg ci gannaawam kon nun ñëpp dañuy teewlu Serigne Bachir moom Cheikh Abdoul Khoudous Mbacké ni mu ko daan defee rek kàddu yi nga xamante ni bii moom la yëkkati ndax bilan wu gendarmerie ak sapeur pompier gendarmerie xëy nañu woote ba organe de presse yépp dem nañu ba jël seen bilan li ñu fi jàpp sàcc yeeg ñi doon nangam mag ñi doon luubal ni ko sëñ Bass doon waxee ci euh, woote màggal gi jëflante nañu ak ñoom ba defe naan yéen ñëpp jot ngeen bilan bi kon dañuy bàyyi kaddu gi Serigne Bachir moom Cheikh Abdoul Khoudoss Mbacké il faut ngeen arrêté ñu indil ko njëkkee ci cant gi ñii ñu fi dajeel. muy ñi nga xam ne seen liggéey mi ngi màcc ci wàllu jottali ak tas xibaar yi te ñu liggéey ci liggéey boo xam ne ci tàmbali ga ba ci mujj gi yépp matale na kenn ku nekk la nga ci def yëg nañ ko xam nañu ko ndax ñi ngeen ci nekkaloon ci taxawaay bi fu ngeen ci toll wax nañ ñu ko leeral nañ ñu ko am na ci loo xam ne xamal nañ ko suñu bopp sant leen bu baax gërëm leen ci ñaan yàlla mu may noonu fekkewaat ko at yu baree bari te kenn ku ci nekk fa ngay liggéeyee yàlla déggale la ak sa euh, say kilifa yàlla yokk leen te kattanal leen te lépp luy yàq sunu borom musal leen ci lépp luy jariñ sunu borom ñot di leen jëme leen ci di sant mbooleem ñi nga xam ne ñoo àndoon ci liggéey bi sëriñ Ousmane ngi nii ak sëriñ Mahmoudan ci kër sëriñ bi sëriñ Abou Sall ngi nii ak sëriñ Mbaye Guèye ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañu àndaloon ci liggéey bi te mu doon liggéey boo xam ne pas-pas rek moo ci mën a tax bokk ndax loo xam ne yàlla rek a tax pas-pas moo la ciy dimbali waaye taxawaay yi nga xam ne am nañ ko ci mbooleem ñi nga xam ne dañoo bokkoon ci comité d'organisation bi dara ump ni ci dara ump ci sëriñ bi te moom mi taxoon ñi di ko def su ko xamee jëbbal ko sunu borom moom mi nga xam ne lu mu faj mu faju yaakaar naa ne sunu sunu yaakaar mën naa dëgër sunu pas-pasit noonu na gën a feddaliku ndax moom mi di sëriñ bi liggéeyal borom daaru nyor rek moo ko ñor ci sëriñ bi te loolu ko xam ku nekk xam nga ko ku ko gis ku nekk it sa xel am lu mu dem ci moom ku ko tàmbalee ci kër gi nu nekk jaar ci jumaa ji ba ci fennu nekkoon démb dafa dafa dalal gan ñi yaakaar naa ne loolu sa bët rek mën lama laa may nga xam pas-pasu sëriñ bi ak taxawaayam ci eh, kër borom daaru ak ci bëgg-bëggi borom daaru te lépp nag delluwaat ci sëriñ Touba kon moom moomu nga xam ne moo taxoon nuy liggéey maa ngi leen di sant ci aw turam di ñaan yàlla mu gën a wéral cër yi gën leen a kattanal ba waxtu wu ko soxlaa rek muy lii muy leneen nam ko bëggee ñu taxawee ko noonu di bëgg rek su jàllee ay fan sëriñ Ousmane sëriñ Abo maa ngi leen di sàkku yéen ñëpp Mbaye Guèye Sylla ak commission bi yëpp rek fu mu mën a nekk ngeen taxaw seetlu ko bu baax niñ ko niñ ko liggéeyee ak ni nga xam ne moo ci ay rëq-rëq ndax doomu aadama matul ak lan moo ci lu mat dolli ak lan ci lu ngeen ko te loolu mooy mooy dundub doomu aadama ñu xool ko bu baax lépp lépp loo ci xam ne la cay rëq-rëq war ko tudde ay manquement ci nun la bàyyi ko ñu xoolaat ko bu baax loolu ñu ko ndax ku woon nit ñi lépp seen lépp yow la war euh, ñu taxawee ko ci anam yoo xam ne euh, danañu gis ne incha allah yéene jiñ ci am ñun ñëpp euh, sunu borom danañu ca jàppale ci léppi liggéey bi nag bu tàmbalee ci presse bi ni ca ndox ma ca wér-gu-yaram ak leneen ak leneen lu mën a doon rek ñu taxaw seetlu ko xool ko bu baax ndax loolu it dafa baax ci ab liggéey waxtu ngeen noppaloo ba am ay tuuti ak jot rek ngeen daje seetaat ko ñu xool wax tàmbali koo waajalaat ndax li jëm ci yàlla moom boo ci génnee tey rek mi ngi mel ne julli boo jullee tisbaar ba noppi da nga tàmbalee waajal takkusaan noonu rek ngay def su ko defee di ngeen ci mën a am bu baax gis-gis boo xam ne dana gën a mën a jàppandal li xam ne mooy li ci kanam kon ci turu comité organisation bi ci turu sëriñ bi ci la ñuy wëlbatiku sant ñi ñu ko seqaloon nag tàmbalee ko ci ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi ci wàllu administration bi mu di sous-préfet bi Eh, ñu potoxlu ci sax tuddaale dëkk bi ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ci seen taxawaay ci li nga xam ne jot nañ ko cee def eh, waaye doomi dëkk bi itam ni ñu waxoon fële démb rek eh, ku mel ibrahima sàll magi sëriñ bi ak taxawaay bu rafet bi nga xam ne am ko ci ak Modou Diagne Fada danañ ko tudd ak Cernolo ak ñoom ñi nga xam ne ñëpp seen pas-pas am na ci loolu ndax ku mel ne Xaadim Ñas mi ma yor ab liggéey fële ca Casamance Ziguinchor te téréewul gis nga da ko tëj ñëw ànd ak ndax wut ngërëmul sëriñ bi ak yeneen i coono yoo xam ne ñu ngi koy daj kenn ku ne ci ñoom ñoom ñi am nañu seen i bureau tëj ko ñëw ànd ak ñun ci loola kon cant gi dañ koy tàmbalee ci njabootuk sëriñ bi nga xam ne dañoo yor seen i liggéey e, tëj ñëw ànd ak ñun ci liggéey boobu cant gi dañ koy tàmbalee ci ñoom ak ñi fi fekk ñi nga xam ne daaw ñu fi génn benn yoon waaye ànd ak ñoom ci liggéey bi nekki sëriñ Ousmane ak ñoom àndal ñëpp ci kër gi yaakaar naa ne loolu bu ma ko junjee rek ñëpp danañ xam li ma ci jublu wëlbatiku euh, àgg ci ñi nga xam ne ñoom la président de la république joxoon ndigal ñu war cee taxawee ñoom ñëpp kenn ku ci nekk wax naa ko fee démb na euh, nga ca taxawee yëg nañ ko xam nañ ko la ca des nag nga xam ne nii ñu xoolee noonu euh, li ma wax léegi suñuy manquement ñoom itam ñu xoole ko noonu ba nga xam ne bu ñu dajalewaatee xalaat yi lépp lu ñu ci rëccoon bi yoon bu beneen ni buñ ci yàlla yóbbook jàmm danañu mën a fexe ba ba dabu ko Euh, loolu li ci gën a fes dëgg-dëgg moo di li ma wax fale démb mooy wàllu ndox mi nga xam ne matukaay yi ñu soxla woon yëpp def nañu ko waaye yeex gaa ñëw su ko defee nga xam ne lu mel noonu ëllëg danga koy dabu nga teele ko ba jafe-jafe yooyu du ca du ca du ca am yaakaar naa ne daal euh, bu ñu taxawee ñun ñëpp te delloo euh, xalaat yi ginnaaw xoolaat ko incha allah lu mu rafetoon rek da koy gën a rafet te loolu it lu mu dëppoo njurum Serigne Touba ak lépp lu ñu koy tudd lu baax tey boo liggéey mu gën a mu gën a baax di sant eh, ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkal itam departement bi préfet bi eh, ak eh, gouverneur mu nekk koo xam ne ko jàmbaare la ci moom itam ñoom ñëpp taxaw ci taxawaay yu mat sëkk door àgg nag ci ñi nga xam ne ñooy ña leen féete kaw di ñu jël ci ndigalu président ak premier ministre moom itam mu am ci ite ju ju mat sëkk ak ak njabootam ñi mu bokkal cabinet ak ñi nga xam ne ñooy ministère yu mu yu mu yilif defe naa ne daal Euh, suñ ko dee gàttal rek moo di ne dañuy wax ne sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp am nañu yaakaar ci ne incha allah suñu borom danañu may euh, euh, suñu taxawee seetlu rek dañuy gën a baaxal te loolu mooy li nga xam ne mooy li ci am solo kon cant gi aju na ci waa dëkk bi itam ñoom ñëpp kenn ku ci ne nga jàpp ne gan ñi say say gan lañu ñi ko sëriñ bi santaane woon ñu defe ko noonu ñi nga xam ne ñoo ko doon waajal ci wàll yëpp itam daayira yeeg ñi nga xam ne seen këri bopp la yor kenn ku ci ne na mu taxawee lépp delluwaat ci ngir am ngërëmul sëriñ bi yàlla yàlla may ngërëmul sëriñ bi ci noonu ñu xam ne ne lañ ko ne lañ ko taxawee te yaakaaruñu leneen lu may lu may moom moom rek la ñu la ñuy la ñuy bëgg ngërëmam moom lañ ciy séntu te moo nañu moo nañu jariñ tey ak ëllëg kon ñoom ñëpp ñu ngi leen ciy sant di ñaan yàlla kenn ku ci ne la mu ca def sunu borom barkeelal ko ko te nangoo ko ëllëgat si biir mu bu dajeeg boroomam mu mën koo jariñoo te yaakaar naa ne ab jaam lépp lu muy faggu tey bu ñu demee ci li alxuraan wax inna la stara minal muminina anfusahum wa amwalahum bi la lahumul jànn mooy njëgug aljanna dafa dafa dafa seer sa bakkan du ko fekkee sa alal du ko fekkee sa dara du ko fekkee te loolu rek la ñu bëgg waaye nag ñi nga xam ne xam nañ ko te di ko jëfe faw rek suñu borom dana leen baaxe ñu mën koy am yoon wa nga xam ne fa la ñuy jaar ba àgg ca yàlla nañu yàlla boole ñooña nga xam ne danañu gis yoon duñ ko jàdd mukk muy teg sa kilifa ci sa kanam di wéy ci ay ndigalam di daw ay tereem te loolu boo ko ñëpp defee bañ dajee ci digg bi rek faw na am ngërëmul sëriñ Touba ak ki nga xam ne moonu diggale ci ci ci ci ci suñu moom bu dee fii ci Daaru Muxti mooy a Cheikh Ibrahim mi nga xam ne mooy kenn ci sëriñ Touba di loxol ndey joram xam ne moom la wóolu ci ci léppam ba dénk ko ginnaawam bi nga xamee ne mooy bi muy dem ci géej gi ba seen daje ba waral suñu jat suñu jataayu tey bii kon kooku itam ku ko am soo amee ngërëmam rek am nga ngërëmul Serigne Touba te ngërëmul Serigne Touba defar na lépp noo ngi balu ak ñëpp di bal ak ñëpp képp koo xam ne ay jafe-jafe ci màggal gi fekk na la fa nga nekk te nga jàpp ne ci ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi di liggéeyloo ñoo la fa ñoo la ko teg loole ñu ñu jéggalu la ko te ñaan yàlla nag kenn ku def sa xel ci ne doomu aadama jënn matul bu kon nag boo jàppee ne yow mat nga rek yow yaa gën a manqué te loolu amul ci équipe bi jàpp naa ne eh, kenn ku ne dafa futtiku ngir liggéey ngir am ngërëmul sëriñ si xati kon ñëpp ñu jàppalee leen ko noonu lu waaye manqué eh, xam ne loola day lu munta am rek waaye su dee lu mën a am danañ ko wuti indil bu ko kon dafa naa sëriñ bi loolu dana doy ñu sant ñëpp ci sant ak ngërëm yéen ñi nga xam ne yéen a toog ku leen gis ak mbay mi fi jógee léegi xam nañu ne kon ñëli ñi doon liggéey ñëpp takkutoo nañ seen kàddu def ko muy benn ànd ci ginnaaw sëriñ Cheikh Khady di ko wut di wut ngërëmam te yaakaar na lool rek mooy li nga xam ne moom la ñuy wut moom la moom lañ war a wut te nu ngi koy wut te yaakaar na dinañ ko am ndax lii rek moo sos barab bi ba ci fii nu nekk nii tey kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla mu mel nu fekk ko déwén yu bare bari mboolem koo xam ne kii yaa ngi dellu rawatina yéen ñi ñu jàkkaar loolu fa ngay dellu yàlla nga fa àgg ci jàmm fekk ko sa njaboot ci jàmm te loo lépp lu fi jëlee ci toyaaba ñu bokk ak jullit yëpp ñaan yàlla mu def jàmm ci réew mi def jàmm ci réew yi jullit li ñuy dégg yëpp ci ay ay ci adduna bi yàlla fay ko fa mu nekk ba du rayaat sax bay dem feneen te loolu sunu borom mën na ko ndax ñaan moom mooy ngànnaayul ab jullit aji gëm ju nekk su ñaanee boromam sunu borom dana ko ci dana ko ci dimbali nawet bi ñuy jóg itam sunu borom def ko muy néew nawet boo xam ne bu jàmm la bu xéewalee lay doon ànd ak ak mucc ci lépp luy lori nawet ndax yaakaar nañ ne euh, euh, bu fekkee ne nawet euh, tàndu na rek mel na ni war a mel réew mi ñëpp danañ ko dund ndax bu manqué ñëpp dañ koy dund kon yàlla na ko yàlla baaxal te yàlla yàggal sunu kilifa ci sunu kanam mu di sëriñ Cheikh Khadim yi nga xam ne moo di xalifatu Cheikh Ibrahim te matale ko nag ci anam yëpp nag ci lépp la ko matale yàlla na ko yàlla yàggal te ko te may ko muy def te sëmb bu mu bu mu tàmbali bu àggee nga defee ne weneen du ñëw te bu ñëw gën a baax boobu gën a rafet boobu yàlla may ko moo di ko gën a def te loolu mu ànd ko sëriñ Cheikh Sidil Mokhtar mi nga xam ne moo di xalifatu Cheikh Khadim te képp kuy tuddoo Serigne Touba mooy sa kilifa te matale ko moom itam ñaan yàlla yàlla yàggal ko ci kanam eh, yoonu Serigne Touba bi te njaboot gi itam kenn ku ci nekk nga ñaan sunu borom may sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar may sëriñ Cheikh Xadi fan ak wér kattan goo xam ne ku dégg sunu kàddu rek na ko ànd ak nun ca loola te yaakaar naa ne bu ñu ko ñaanee sunu borom danañu ko danañu ko defal ndax wa amama faxu naas fa yam kusu fil ard loolu alquran wax képp koo xam ne danga amal njariñ nit ñi sunu borom moo lay téyel boppam yàlla na leen yàlla téyel te boole nu téye ak ñoom ñu daw seeni i di nangu seen i ndigal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu